pour lépp man ko tek ndax bëggul vraiment population yi ñuy tek injustice si loolu parce que évidemment ndax injustice bobu dina ma yóbbu ci nan la président du joxe waa Ngor lycée pour 5000 mètres carrés tay mom bi fa waa Ngor demee mu demander rapport bi ñu andil ko ko mu il a constaté que ne au lieu de 5000 mètres carrés 5000 mètres carrés gars yi dagg nañ ci donc ñamu jital ci walu wàllu ci des fois ñu ci def lo xamné ne naka su dul la diko nak yobul ay rapport yo xamné yi ah ñun buñ koy saytuwul contrôlé wuñu ko ñom ñoo sey enrichir to lolu dafa wara dak ñun lolu lañuy xex ñun nak ñoo jàpp ne xale yi nañ tok rek taxerlu xex bi ñu koy xex njàmbat li ñu koy dox pour que saafara mën am pour que vraiment apaisement mën a am donc defena naa ne ay responsable ñoy wax responsable ak citoyenneté ak euh, vraiment patriotisme mon waral ñu bayyi suñu lepp nek ci liggéeyal askan bi pour indi solution entre l'État central et ses populations ma yaakaar su fekke ñom bëgg nañu rek jamm bëgg apaisement ci ba am ci dëkk bi vraiment li war nañu ci uyu son excellence namu ko waxee wa tànk ya demone ñu tok autour d'une table ñun techniciens yi nga xamante ñoko ñoo ak les techniciens étatiques ñu tok waxtaan ci ba vraiment trouver ay solution ci bi